thank you Ce qui s'est passé aujourd'hui au Sénégal n'est qu'une démonstration pour la énième fois parce que nous savons que le Sénégal est un des pionniers en matière de démocratie africaine. Et je pense, je pense que ce n'est qu'une répétition en matière sénégalaise. Tout ce qui s'est passé était vraiment dans la joie, dans la transparence et en toute quiétude. Les gens sont sortis massivement pour voter, dans la paix, dans la convivialité. Et je pense qu'on ne peut pas demander mieux je suis M. Comparé Saïdou, chef de mission du Parlement africain. Alors nous voulons aussi lancer un appel euh, à, l'ensemble des acteurs de la vie politique euh, notamment de l'opposition, que nous connaissons que c'est une opposition républicaine, euh, que vivre dans la démocratie, c'est le but de tous les hommes. Voilà pourquoi sa consolidation nous incombe tous. Il faut alors joindre la volonté au dialogue chacun ne, ne, se dise que son acte n'aura aucun indice sur la marche du public sénégalais. Il faut de la volonté, de la détermination et savoir qu'il y a qu'un seul vainqueur parmi euh, ces ses électeurs, parmi ses candidats, il y a le public sénégalais. La, proclamation provisoire a désigné quelqu'un comme vainqueur. Nous prenons acte et nous lui adressons les sincères félicitations. Et je pense qu'il faut qu'ensemble, euh, main dans la main, ils puissent continuer à travailler à ce que le Sénégal, comme nous sommes venus le voir, est vraiment un pays émergent, continue à émerger pour faire la fierté non seulement du Sénégal, mais par ricochet l'ensemble du peuple du continent africain. C'est une fierté pour nous. question ne dañuy taal dëkk bi kenn bëggul taal dëkk mais nag dafa am loo xam ne bu amee dëkk moo koy def dëkk bu dee si kaw mu la war nekk bi dëkk lay dox di dëgg dana Macky Sall bu ko déglu système bi kaña waxam kenn du ko conseil parce que li def ni ku la xam ne pour lay xaar ñu recours ñu mu am day dem deuxième tour par la force mu nekk mu naqari ko wala mu jàpp ñu tëj leen dem bu ñu ngi jàpp suñuy leader leen yóbbu ay xalaat di leen téye ñu mënoo ragal lool parce que loolu nekkul ci temps wu ragal maanaam mu temps wu jàmbaarloo day am man sax loolu nga xam ne jàmbaarloo ñoom ñoo ñu suñu doole ay ay ay ñu doole ci ñu ko ñoom ñu daal ñu xool jeex na am na lu waay xool ñu daal ñu wax armée nationale ñu leen di tàllal loxo en tant que ay ndaw Sénégal suñu sécurité suñu sécurité ngeen yor ko réew mi nag toll na foo xam ne nag ay jugement yi daje di tënk ba pare boole ñoom ñu mën a génn ci terrain bi ñuy sànnante ay terre di wax lu dafa ak yéen ngeen jël seen responsabilité sinon moo am rek jàppale ne yéen rek lañ yaakaar ndax yéenay force de l'ordre yi yéenay suñuy kaaraange kon nag bu leen bu leen ñu wàcc mais ay nag mënuñoo xëy xëy rek ngeen wàcc non loolu ñoom ñooy njiit yi bu ñëwoon léegi ñu wàcc léegi boo leen xoolee yéen a ngi dégg am na ñuy wàcc mais dafa am xeex bu ne dafa am noonu ñu koy defee ñoom leer nañ ne duñ defal ko la ñu ah. waaw man laa la mën a déglu. voilà. tur bi suñu dëgg la laaj dëgg la laaj ak jàmm. mais ni mu paree mu paree kon nag dafa war a xam ne moom toog ci kër yi dafa jeex tey ñun ndaw ñi suñu suñu suñu suñu bakkan la teg parce li tax ñu suñu bakkan mooy. résultat yi ñuy wax dara amul résultat yi yi nga xamante ne génn nañ ko dara moo ci nekkul ñun nag waa Touba waa Dakar ak waa Ziguinchor fépp ci Sénégal partout dans le monde ci diaspora beeg ñëpp nañu xam ne ñun li ñuy xeex suñu liberté la ñuy xeex Macky Sall Macky Sall la boo xamante ne tey ku ne xam na ne lii préparé woon na ko kon ñun li ñuy naqaru tey mooy le président Idrissa Seck bi mu ñëw ci buntu këram dafa war a génn ñu combat moom moo ñu xeex ñu au niveau de Touba ba jox ko li nga xamante ne tey li mu soxla yëpp def nañ ko kon tey amatuñ ñu làqatu bat nañu parce que ñun dañ si fekkoon ñu koy ñu leen def na président Sonko parce que moom mooy ki nga xamante ay responsabilité mais Idrissa Seck moo dem deuxième tour Sonko dem deuxième tour kon nañ nañu bàyyi li doon def ci Idrissa Seck dañ a bàyyi li ñuy def ñun dañoo suñu bakkan la ñu war a dañu teg suñu bakkan kii soo dañu soog suñu bakkan yi Idriss Seck na génn nekk devant mu dem génne Macky Sall sax pare na ñoose ko parce que Macky Sall gagné wu lii résultat yi c'est pas vrai c'est faux ñii dañoo sàcc élection yi kon ñu ngi wooy ñëpp man je suis paré pour joxe sama bakkan kon le président Idriss Seck génn ci biir comme dafa dafa loolu mooy wax ji na génn ba fi ñu jaar wax na ko léegi nee na amatul ay toog salon mais nañ génn ñu xool la ñu def c'est ça le problème parce que comme le gouvernement waxoon Serigne Cissé président la àndandoo defar les résultats de ces élections je pense qu'il faut tenir compte de ces résultats pour que le Sénégal reste le Sénégal un pays où il y a de vivre ensemble la cohésion sociale pour que le Sénégal continue donc de montrer la voie de la démocratisation au continent